sosaas sosaat yëpp yi ndax yaa ngi egsi woon nag sëriñ Saliou ab jàngalekat la kon dañ lay laaj sëñ maxtaar bañ ñu la doon laaj diggante sëriñ bi am na sax loo ki junj ak ku tedd gi waaye juróom waa sëriñ Touba waaye diggante sëriñ Saliou tamit nag ak tarbiya xam naa diggante diggante moom waajuram sax nañ ci dellusiwaat mhm. door ñëw ci tarbiya mhm. ndax boroom xam-xam yi dañ ne wekk moo gën may sëriñ bi nga jox ko cëram moo gën sëriñ bi nga jox ko million loolu mat a xel la ci bokk yi ndax ñoo ngi ci jamono joo xam ne léegi sam përëg yaa ngi koy njëkk a dendaleeg sa përëgum sëriñ ba xam tolloo na am déet ahlu buxaara buxaari yu muy ngeen di dégg fa mu dëkk li leen may barkeb xam-xam mooy dañoo wekk seeni sëriñ ba wekk lu aju ci seeni sëriñ ni ko sëñ Tuubaa di waxee ci ci nax ju wekk sëñ bi ba wekk lim am ba lim am sax bul ko niroog lim amul ba ci ay jaamam ahlu Buxaara dañuy jël leçon ci kenn ci ñoom day jël leçon ci sëriñam boo xam ne dafa jànge alxuraan ba mokkal lu mel ni nga ñëw sëñ Abibu Jóob di fa jël bind kii jël si bind nag léeg mooy muy ñokket ñokket yi mu ne ko waaye looy def nii mu ne ko soo may jàngal sama doomi sëriñ day dawal ak cercle di jaar di jaar ci couloir bi te saa yu ma ko séenee damaa war a jóg màggal ko rek moo war a bëreet bëreet ji waaye du dara ci man xam nga kon ñoo tax màggal moo gën maye. jox nit un milliard te tegoo ko fenn bañ koo jox dara te wormaal ko parce que sëriñ ñi nga jëriñoo ci moom ci wormaal mu ñëw ci sëñ Saliou Mbacke képp kuñ tuddee xaadim ku ne xam nga ne boo dikkee ci daara ji sëñ bi du la wax xaadim tur woowu du ko du ko wax képp kuñ tuddee maam jaara boo dikkee ci kër sëñ bi dootoo déggati maam jaara xaadim ji dañ koy soppi Cheikhuna wala Cheikh kese jaara ji ñu soppi ko maam Boussa lu ko waral màggala ngi yem ci buñ nee sëñ diw nga tiit xam ne kooku du sa moroom waxuma la nga ñëw ba gis sëñ diw nag <laughs> di ko tappaas orma jooju la Cheikh Saliou Mbacké jëkk a jox Sëriñ tubaab ba ca des mas nañuy waxtaan bu waxee sëñ bi rek bu la nee ko euh, bu la sëriñ bi sëñ Tuubaa la ci jublu moom amul keneen ku muy dugal guddi la woon muy wax ne ab murit bu ne war ngaa jàngi ngir nga bokk ci ñu sëriñ bi tuddee euh, ñoñam daal ne laqante nii yaa maalikil alfaada ba ne alfaada la ne <gasps> ci guddi la maa ngi moom ak kese ak yàlla parce que wax boo bëggee in inna min barakatil qawli an yuza ila saahibihi soo bëggee wax importance neel waxal ka ko wax wa bi turaqi xisbaka al xufaada ndeket boobu mi ngi doon jooy kon xorma mun ta weesu loo tudd turam xorma mun ta weesu mun ta mënoo nettali waxam ja ndax naa loolu xorma mënu ko weesu koo xam ne mënoo tudd aw turam mënoo nettali ay waxam te rangoñ tuuruwul mm-hmm. ok moo tax cheikhul euh, Mouhamadul Qabalaani daf ne woon mm-hmm. école yu njëkk yi dañoo jàngaloon seeni doom jooy mm-hmm. école yu mujj yi jàngal seeni doom ay diplôme bi diplôme yi dikkee nag jëli fi jooy yi tappale yi tàmbali lu leer la wax moo tax moom du tudd sëriñ bi direct ki turam ba mas woo njàpp ndal fekk booba daa julli ma tolloog fenêtre bi boobu mu daan ubbi muy tolloog wetu càmmooñam benn waaye daan ne barki sëñ tuuba sëñ bi daan ne këng-këng ku fii mën a ko man <laughs> mu naa ne wool ma ñëpp ma woo waa ñu dajee mu toog nii ma toogee ñëpp toog ci kanamam kenn bu dikkee naan na mbaa kenn manqué wu ndax buy wax ñaare message yenn yi du bëgg gone ko ci gone gu ndaw ga sax ñàkk koo fekke ba ñëpp teewee dane sa laaw de damaa bëgg ngeen xam ne turam wu tedd woow yi ngeen di tudd day ñaara war a tudd ko wala ñett bu ma juumul mhm. dugg ci gaal muy bëgg a mhm. nga tudd turam wa te benn yoon doy na ca mhm. ak gaynde dàq la ba di la bëgg jot nga tudd turam wa te benn yoon doy na ca kon yaakaar naa kon deesu ko tudd ndax ñun dugg ñu ci gaal muy bëgg a lab deesu ko tudd nekkuñ ci ab dédd bu ñu gayndey jàppe am na ci beneen rewaay boo xam ne ku ko nar tudd sax na ngay giñ ci man baa ngay giñ ci sëñ Sall Touré nga xam ne moom joxe na jëmmam moom pour ñu aar turam bu tedd ko da tegaat ne képp ku koy giñe day te muy dëgg yaa yées ci say nawle kon xorma mënta weesu bokk yi lu mel noonu ku tegoon foofu kooku nag mas na wax ci ay waxamin ne sunu mbir ñi ngi ko teg ki imaanun saadiq amalun saalix ak ñetteel ba Euh, en tout cas daal dane woon euh, tarbiyaam gi mi ngi ko tënk ci gëm gu mat sëkk wa wa niyatun euh, saadiqa effectivement ñett yooyu la ne sëñ Saliou nee na ci la tabax mbiram pas-pas bu dëgër jëf ju sell gëm gu wóor yaakaar naa loolu comme ci la mooy chiaram comme lay Ablaye Wade chiaram mooy nangam keneen chiaram mooy nangam muy parti bu ne dafa am benn chanre ba benn signe mhm. moom signe am nee na mooy ñett yooyu mhm. mas naa ko waxtaan ci Maroc mhm. hôtel Hilton muy hôtelu Mohammed VI nga xam ne ñëpp nga fa ay diplomatique ñoo fa nekkoon ma koy ard ci loxol arabiya bi ma waxee dañ ma ne kii nga wax nii lu mu bokk ak Xasaali ndax mu waasafaat yi culture maanaam qualité yi qualité Xasaali la ma leen mi ngi dund benn dana ma non yaa axi saddiqnii mm-hmm. walaay mon frère mm-hmm. il faut tu me dis la vérité mm-hmm. ma ne ko xaqiqatan huwa fi qayd ala qayd al xayaat parce que bi may wax nii 2003 laa ko doon waxtaan si baa ngi fi jóge 2007 2008 kon moom sëñ Saliou dafay insaan alami dafay nit ku ku mondialisé foo ko wax boo waxee ay melam nam mel ñëpp daañu xam ne nii la nit ku baax war a mel bi gaddi nazar nag ci ay jébbaloo topp waaye moom dafa valable fépp daa mel ni dollar wala euro dollar réew moo ko tàllal danañ la fay ko doon wasf daqiq al wasf daqiq da nga saali mooy dollar c'est taux bu mu maanaam am la ba mu dem mën naa jëf leen teg moom kon nag Cheikh Saliou Mbacké ni mu tegoon fi mu tegoon sëriñ bi mbokk yi mooy dafa aaroon turam mu ormaal ko fi mu tegoon sëriñ bi daf koo jëloon kaqaduwa roy teef la mas naa wax ne sa laaw day yoonu murid li ci ñeent yi ci jiitu mooy yii li ci tege da caa tege daal di tudd njàngum alquran ndax ni ko sëñ bi fonko teg ca njàngum xam-xam xam sa diine daal di ma war sax sasu bi sasu bi gars yi ci daara ji xam nañ ko daana wax naan sa law lii de mooy sasu murit mooy juróom-ñeenti téere yooyu ku ko mokal nag bu la neexee maanaam ku ko man bu la neexee nga dolli ci waaye ku fi yem it mooy saw sas daal ni sa la boo ci dolli nag leneen loo wax nees na koo weddi waaw loolu lan tënk kon moom daana jàngalu xam-xam daal di cay teg na njàngum xasiida mooy ñetteelu tomb bu yoonu murit biñ ko sosee ak ñaqu jë ñaqu jë mooy nga takk sag der dem tool liggéey kon kooku loolu la jël ci sëriñ bi danañ ci ci gën a yaatal incha allah bu ko waxtu wi laajee Cheikh Son yi bo jërëjëf jërëjëf sëñ Maxtaar tabaarakala tabaarakala sant nañu bu baax a baax xam day mel ni mbokk yi fi teew jataay bi mi ngi mel ni ñoom ñëpp ñu ngi ne teg tekkaaral gi nag li ko xam naa li ko waral mooy wax ji dugg na leen te jàpp naa ne tamit ñii seetaan waxtaan wi. Mhm. nii mu ñu duggee ñu ñu teewee jataay bi. Mhm. ñoom tamit la leen duggee noonu. kon bala ñuy ñëw ci sëñ Abibu mhm. muy am kàddu yum sànni ci waxtaan wi. sëñ Saliou Mbacké wax nga ñu. mooy kan. ndax wax nga ñu way juróom wu tedd wa. muy Cheikh Ahmadou Khadim. wax tamit waay juróom wu tedd wa muy Soxna Faati. fotal nga ñu tamit.